yàlla ñu jugee te ci moom la ñu dellu euh, sama teewaay nag li ko waral mooy feddali kóllëre suñu diggante kilifa gu mag gi fi jugee muy El Hadj Sidy Lamine Niass ñaan yàlla sunu borom yërëm ko te xaare ko ci àjjana yi gën ndax nag dee moom ñaari àndoo la lu tàggul bu mukk muy métti ak bette métti na bette na waaye lépp dañ koy delloo ci loxo yàlla ndax ci moom la ñu te ci moom la jëm xanaa di def ay baatu seede ci moom li ma xam bi ñu jotee xamante ak léegi donte Euh, léegi ma def fa juróom-ñaari at mais gis naa ne nit ku ëmb la ku oyof ku respecté doomu aadama ku xam li mu doon xamit li nit ki doon te loolu mooy li ëpp important ci doomu aadama euh, parce que dafa am ñetti façon dem dafa am koo xam ne dafa am xam-xam xamlewu ko ba pare dem kooku soxlul sax ñu koy jooy ak koo xam ne doomi soxna la day tëju ci néegam di ñaanal askan wi di leen dolli leen yóbbu si yàlla suñu borom kooku bu demee mënees na koo jooy. ñettel moy ki nga xamne dafa am xam-xamam yor ñam yor jëmmam aussi diko wone te ñett yeb dafa daje ci mom borom xam-xam la doomi soxna la te journaliste la day joxe bakkanam ngir askan wi kenn ku si nek nekk ci jamm loolu ñukoy sante yalla baax ndax olof da koy wax ni bu nit ki su kër gi ñamu baye ño baax bu yi nit ka dem mo baax tay kër ga macha allah Kaolack télé ba macha allah ci armeel yi aussi kon da ngay gis ne mom mi dem amna lu ko yalla jagleel amna lu yalla def ci mom ndax nit ki en général ñu ci bari bu ñu demee leen leen xam mais Sidi allah euh, bibliothèque la woon borom xam-xam la te ku la ndax man ci liggéey mais liggéey mom contrat lañu ñu mais suma liggéey bu liggéey bi jeex dafa ma daan en tant que man waat lu ëpp lam ma fayon ci contrat bobu non ne ma jël nga yobbu sa kër. te lolu gor mo koy def ku baax mo koy def ku mëna doom aadama koy def en tout cas ñuy ñaan yalla suñu borom mu yërem ko ta xare ko ci aljina yi gëna kawé ta am nañ ci njott ndax murid yaa ngi ñaan tidiane ñi ngi ñaan khadir ñi ngi ñaan ñepp ngi ñaan kon sha allah yalla nako yalla yërem yërëm. am euh, koor la nit ku dem la jëmm ji amu ci solo li ci ëpp solo mooy ruu gi naka la nako la nako la ko yalla téro ak fan la ko yalla xaré bu fekkee defo lu baax jëfo lu baax bo faatoo même buñ la ci ronu rasulullah sax bu la yalla yërem du lo yërem li ëpp solo moy jëf ji moy li ëpp solo te moom jëfam rafet na fu mu mën a ne ci àdduna dañuy rafet ci moom jot kon mbirum yóbbu fii ak fii pour man amul important li ci ëpp solo mooy bëgg-bëggam moom te doom ji li mu wax leer na mooy papaam moo ko bëggoon te même bu ko papaam nit ki kenn amul sañ ci moom lu la ca doom ji am kon doom ji moo ci ëpp sañ képp ku fi nekk tey ci jamono ji kon bu bëggee ñu denc ko fii dañ ko fi denc te sant yàlla parce que am loolu amu ci solo li ci ëpp solo mooy jëf gi rek jëfal lu rafet te gudd fan du ci at yu bari man ngaa am fanweeri at faatu ba àddunay tukki sa jëf du suulu siidi ba àddunay tukki kenn du fàtte ay jëfam. jaale waa Léona ñaseen mm. di ko jaale waa kawlax mm. di ko jaale Muriti mm. di ko jaale Tijaan yi di ko jaale Niassène yi ak Laayeen ni di ko jaale di la ko jaal yow mii sax ndax yow góor gi dalaa bëggoon am fu mu la teg yow danga bokkoon si lu koy béggal lu koy reetaanloo lu koy. di ko ñaanal yàlla yërëm ko te yóbbu ko àjjanaay si kii mënuñ ko fay wax dëgg yàlla parce que lim liggéeyal adduna yëpp la ñuy wax kay man de ab murid laa tey ku ko sopp laa ku ko bëgg laa su may wax fii ba suba mënu ma ko jeexal waaye wax dëgg yàlla ñu ko dëggoo nii ñun duñ ko amati nit koo xam ne fasaa yi na nii duñ ko amati nit koo xam ne bëggee na dinaam nii duñ ko amati amatuñ ko duñ ko amati wallaahi la si amatu fi. nee na na nañ ko defal noo xam ne ni yonent sallallahu alayhi wa loolu lañ ko defaloon ndax kii ak yonent sallallahu alayhi wa sallam daanaka man dama seen seen demin benn la ndax xamoon nag bisam si lamin xamoon na bisam bis bii xamoon na ko kon nag mbir mi na rafet mag ñi nañ ko bàyyi seen loxo seex nag doom la doom am na cër ci baayam wante nag si seex itam baayam yi am nañ cër ci moom ku mel ni